di ko ñaan mu musal ñu sunuy ayu ak sunuy ñaawtee fi jëf di ñaanal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yàlla jàmm yàlla ak xéewalam ak i muccam yàgg wàcc ci kawam di seede amul benn buur bu ñu war jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa di seede ne ko yónni mu di jaamam di ndawam di ñaanal saaba yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom yàlla na ngërëmal yàlla subhanahu wa taala yag nek ci ñom di delu ci ci bind bi di ta'sis al ahkam lil allaama ahmad ibn yahya al najmi rahimahullahu taala si sharaa gi mu sharaa umdat al ahkam lil xaafid al maqdisi rahimahullah ñu tolloon ci buntu koor ci xadiisu téeméer ba ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent xadiis numéro 189 ci al umda al alxaafid almaqdisi raximahu llahu taala di way di wax عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان sunu yaay Aisha radiyallahu taala anha moo nettali ne daan na am bor ci weer wi di weeru koor daan na ci am bor boo xam ne du ko mën a fay lu dul ci weeru baraxlu maanaam daanu ko mën a fay ci diggante bi ba baraxlu ñëw ci la koy mën a fay loolay mooy xadiisu tey bi lii nga xam ne mooy boru koor boru weeru koor kañ la ko nit ki di fay mawdu al xadiis kon li nga xam ne ni ci la xadiis bi di wax cheikh bi nee na qadaau lfaait min ramadan wa anna waqtahu muwassaa xadiis bi si li muy wax mooy fay boru koor fay boru weeru koor te it jàng ci ne fay gi waxtu la goo xam ne dañ ko yaatal kañ la ko nit ki defay waxtu ñu yaatal la heure bu ko nexé la koy fay fek waxtu wi demul ba xat ci mom ba teunku ci fan yi nga xamne mom la am bor balaa wéru ko du dugg mufradat baat yi nga xamne ni ñoo ñëw ci hadith bi qawluha يكون علي الصوم من رمضان وحجم وحنه دان ام كور تي weeru koor ay fan yoo xam ne wooru ko ay daynan lima yafuutu bi udril xayd maanaam bor boo xam ne la ko waral mooy ngàntuk aaday jigéen maanaam ci weeru koor bi mu am ci ngànt ba dog ci ay fan te la ko waraloon mooy aaday jigéen loole moo ko moo waral bor ba qawluha fama astati wax ji mu wax ne daanuma mën فما أستطيع ما نافية ما يوجد دقنا لا نمك ما نفي وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لم أستطع أي فما أستطيع قضاءه إلا في شعبان حرف أن جوجي فعل بس توقف أقضي أن أقضي مملني تديني dañ koy ta'wil ci masdar bo xamne mo moo nek a manam palaasam maanaam fama astatiu qadaahu loolu mooy wax daanu mako meuna mën a fay fama astatiu fi'lu astatiu la doon maf'ul ba mooy qadaahu qadaahu moom lañu ta'wil ci an ak fi'lam di an aqtiya bi maana fama astatiu qadaahu daanu mu ci chaban bii di baraxlu illa joojee istitnaiya la illa dafay ñëw di seppi maanaam ñàkk mën a fay gi baraxlu bokk ci si baraxlu daal moo doon nekk waxtu bi nga xam ne nag a xat na léegi faw rek ma fay ko bala koor gi di dugg al maana al ijmaali kon xadis bi maana général bi nga xam ne ni moom lay tekki tuxbiru aishatu radiallahu anha أنه يكون عليها الصوم أي قضاءه فما تستطيع القضاء إلا في شعبان من أجل اشتغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم سنيا يباح يوجد لعائشة رضي الله تعالى عنها مموني خباره دني وخني دان أمبر كيوير كور بربو بي دانو كومونا فاي دانو كومونا فاي لا ورال نياك مونا فاي moo yitte gu rëy ka mu joxoon yenente bi sallallahu alayhi wa si di ko toppatoo saa su ne ba du mën a woor maanaam yitte gu rëy gi mu joxoon yenente bi sallallahu alayhi wa moo moo ko waraloon daanul di woor ngir yitte woo yenente bi sallallahu alayhi wa ba barax lu dikk nag mu ne ah léegi xat na faw rek gi jot na mu daal di koy fay fiqhul xadiis kon li nga xam ne ni moom la ñuy déggee ci xadiis bi ak di ko ci jëlee ci ay njëriñ awalan ba sa jiitu an alqadaa waqtuhu muwassa la sa jiitu mooy ñu xam ne fay bor ci weeru koor nit ki bu sa amee bor bor boobee fay ko waxtu la wu ñu yaasal waxtu la wu yaatu woo xam ne heure bu ko boroomam mënee na ko si fay kenn du ko imposer na ko ah bu weeru koor jeexee rek forcément da war a fay si fan yi sa jiitu waroo koo yéexal déedéet waxtu wa dafa yaatu heure boo ko mënee ci nga koy fay tànka demoo ba barax dikk ba fan ya nga xam ne moom nga rek moom moo des ci baraxlu bu boobaa waxtu wa dafay xat si yow bu boobaa moom dafay war si yow nga fay ko mais feeg loola amul heure bu la neexee mën nga koo fay mu ne li waral loolu li anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kaana yaclamu taxir aisha radiyallahu anha fa yuqirruha alayh mu ne ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne sunu yaay aisha mi ngi yéexal fay gi fayu ko waaye daka si daan bàyyi waxu ko dara وذلك دليل على أن القضاء لا يتضايق وقته إلا إذا قرب رمضان loolee li muy tekki ak li muy firi mooy ne fay gi kon waxtoom du xat feek weeru koor jegewul bu weeru koor demee nag ba jege ba dara desatu si lu dul fan ya nga dogoon boobaa dafay daal di war si yow nga fay ko doo ko bàyyi ba koor gi duggaat sa kaw fekk nga amoon bor boo xam ne fayoo ko ثانيا ñaareel ba يؤخذ منه أن ما كان موسعا قبل شعبان فإنه يكون مضيقا فيه وبالأخص إذا لم يبق من شعبان إلا قدر عدة الفائت ñaareel ba mooy yaatu googee ñuy wax ñu ne fay bor bi waxtu yaatu la heure bu la neexee nga koy fay dina dem nag ba xat si nit ki bu demee ba nga xam ne nii baraxlu dugg na nit ki amoon bor si weeru koor waxtu yi dafay mujj xat si moom rawatina nag bu demee ba fan ya nga xam ne moom la dogoon limu fan ya kepp moo des ci baraxlu boobaa moom war gi daal dina xat dootul defar lu dul fay boobaa dafay war si moom mu fay balaa koor gi di dugg ثالثا يتلبى إذا أخر المكلف إلى أن يدخل رمضان آخر بدون عذر ومع وجود الاستطاعة فإنه في هذه الحالة يأثم ويبفك مكلف جي كي نعم نكون توقو جي فمي مكلف دفا أمبر شوير كور يخلكو بانكو فاي بويرو كور دوغار سكوام te fayul bor ba nga xam ne nii moom la amoon te amu si benn ngànt si coobaram rek la toog ba weeru ko duggaat amul benn ngànt am na kàttanu fay ko mais moom moo toogoon noonu rek sàggan ba weeru koor fekkaat ko fa kookee dafay am bàkkaar si loole dafay am bàkkaar ndax yéexal na farata soo xam ne dem na ba waxtu wa jot fay ko jot xat comme niñ ko waxee woon sànq te defu ko dafay am bàkkaar si loole wa hal alayhi itaamun ida qada baada ramadaani thaani bu demee nag ba ñaareelu weeru koor woowee fekk ko fa jeex buy fayaat ndax daf say boole leyal boole si am déet ndax buy buy fay weeru koor wu njëkk wa nga xam ne daf koo yéexal ba weeru koor duggaat bu weeru koor bi jeexaatee buy fay bor boobee ndax ndax daf say boole leel am déet nee na hada mahallu xilaafin bayna ahlil ilm loole ak wuute am na si si diggante boroom xam-xam yi ñii nee nañ fay ga du doy waaye dafay leel boole si ñenn ñi ne déedéet leel gi moom euh, kenn waralu ko ko fay rekk lay def ak tuub bàkkaar ba nga xam ne defoon na ko na ko tuub waye fan yoyé nako fay kep mune fa minhum man awjawel itaam am na kham kham yi ñu waral ne da fay leel booleeg fayga akhdan bi fatawa li ba'd baad sahaba fi al-mawdu' ñoñe ñi nga xamne dañuy wax leel booleeg fayga ñi nga sukkandiku ci ay ubbe yo xamne yenn ci sahaba yi lolé lañ daan ubbe lolé lañ daan fatwa ci ne ki bàyyi weeru koor ba weeru koor fekkaat ko fi te amul ngànt kookay buy fay dafay leer yenn ci saxaaba yi daan nañ ko fatwa wa minhum man qaal laa yasixu fihi shay wala yulzam al mukallaf fi dalik am na nag ñu ne amul lenn loo xam ne ni ñëw na si ay textes yu wér ci loolee ba ñu mën see sukkandiku ne dafay leel te eh, aji mu kàllaf ji kenn du ko sas lenn loo xam ne eh, taxi yi ñëwul di ko ko sas kon fay rekk lay def comme niñ ko waxe woon ak tuub gu wér ci yàlla subhanahu wa taala bañ a delloot ci loolee bàkkaar boobee mu def te mooy yéexal borba ba ba weeru koor fekkaat ko fa cheikh ahmad rahimahullah daal si teg ci ñaari ngir yooyee qultu ان التهاون والتفريط مع وجود الاستطاعه حتى يدخل رمضان اخر يكون موجبا فيما نظن مني كاغانتي كاغانتي آه، جيغا خامني موم لا كوكو اندال ساغان با ويرو كور ديكا تمو ام من من بي اك امول بن ngant آه، ba wéru koor fekkaat ko fa mu ne loolee si li mu njort moom cheikh ahmad rahimahullahu taala mooy waral lii nga xam ne mooy leel ga maanaam càggante googee ak di yéexal te amul benn ngànt loolee mooy waral si moom mu mu leel walaalla alladina aftaw bil itaam nadaruu min hadihi naaxiya mu amaat na ñi nga xam ne ñoom ñoo ne dafay leyal boole si loolee lañu xool càggante gi mu àndal ak di tayal ci fay te amul benn ngànt ba weeru koor fekkaat ko fi li yakuna hada al it'am saddan lin naqs alladi xasala bi taaxir ñu ne ngir leel googee muy leel mooy ñëw di fatt di fatt Euh, càggante googee ak yéexal boobee mu yéexal farata soose mu ne wallahu taala aalam yàlla rek nag moom moo xam kon ñaari wax am na si si waxi boroom xam-xam yi ñii nee nañ du fay rekk yam si waaye dafay leel boole si ndax càggante gi mu àndal ba loolee dal ñeneen ñi ne euh, fay rekk lay def leel gi moom amul benn tegtal bu wér bu ñëw di ko saxal di ko gàll ki nga xam ne mooy mukallaf bi waaye tuub moom moo ko waar ci yàlla subhanahu wa taala tuub gu wér mu fay fan yooyee nga xam ne ndogoon na ko ñeenteel ba ci li ñuy déggee si xadis bi ak di ko si jëlee nee na yuxadu min alxadis an almarata yajibu alayha an tastadina zawjaha fi lqada ida kaana waqtuhu ma zaala muwasaa mu ne dees na jëlee ci xadiis bi ne Eh, ndaw si ku jigéen kii bu demee bay fay bor bi nga xam ne ni am na ko ci weeru koor bu weeru koor bi jeexee buy fay war naa jël ndigal si boroom këram war na saa am ndigal ngir fay bu fekkee ne waxtu wa ba léegi dafa yaatu maanaam am na droit fay ko si waxtu woo bu ko neexee yéexal ko fekk mi ngi yaatu buy fay na jël ndigal ci boroom نظرا إلى أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم من أجل الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق لولا نينكو تكتيني سنة عائشة رضي الله تعالى عنها دان باي في بر ويركور غير yittewoo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak diko ko toppatoo loolee moo taxoon daanul mën a ba daan tok ba waxtu wa mujj xat muy barax lu dugg ci lay profito daldi fay kon ci la borom xam waxé ne ndaw si bu fekkee dafa nek ak borom kërëm euh wara fay bor fék waxtu mi ngi yaatu buy fay na jël ndigal ci borom kërëm bu ko bu ko ci joxé ndigal mu fay bu ko si joxul ndigal mu yéex xalaat ko ba keroog euh, muy am euh, jot gu nga xam ne ni dina ko fay loole nañ ko jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi tere gi mu tere woon jigéen muy woor jigéen ji nekk ak boroom këram tànk woorum la fekk amu si ndigal si borom këram ngir yittewoo gi mu war a yittewoo borom këram euh, ak mën na ko soxla bu ko defee mu jël si moom ndigal bu ko joxee ndigal mu daal di woor woor naafila kadalika bor bi nga xam ne naam fay boru farata la waaye comme waxtu wi yaatu na euh, kenn imposé wu la nga fay ko si tey wala suba fekk waxtu wi mi ngi yaatu boo demee bay fay nga jël ndigal ci sa borom ko bu la joxee ndigal nga fay ko comme sunu yaay ju baax ji Aisha radiyallahu taala anha doon ko defee digganteem ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu taala alam صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين